kanam baloo def doo ko xalaataat maye nga ko fàtte nga ko mu ne ñoo ñoo texe ñoo ñay xadaf laxal muminuuna waaw ñoo ñay xadaf laxal muminuuna saxaaba yi lu ñu joxe woon dañ koy fàtte aboubacarin saddiq génn ànd ak sayiduna muhammad waa màkka yebal ay nit ne ku ñuy indil bopp yonent bi loolu du mën a sotti du mën a sotti Seydi Hadji Malick nee na ka ko njëkk a dab daj na fa lillahi isaqat jawaadu suraqata qawaa'imuhu baada rujuu'i yaqulu aba xaqami law kunta saaxida amaama jawaadi wa lujuuju jahuulu wa jahuulu lujuuju Haj Malik kenn du moom waaw Maodo nee na laajal suraaxata mi dabi woon yonent bi ne bopp ba lay jëli mais nabee ngi ànd ak Aboubacar raful dawul tiitul si daaji Malick nee na am na foo xamante ne xat xasina siddiqu nekk zawala xin Maodo nee am na foo xam maa ngi toog Tiwaawoon gis Aboubacar muy gestu côté bu ne zawala xin fu nabi di dox rek Aboubacar di gestu Maodo ne ma di ko xool rek xat xasina billay foofa xawoon naa jàkki tuuti tuuti as siddiqu ku dëgg ko zawala xin muy bërëmu wëlbatiku côté bu ne di bañ lu gaañ abu euh, sayiduna Muhammad mu ànd ak moom rek côté bu ne mu di ko xool ñu ne Seydi Hadji Malick ñaata fan lañu def yoonu madinatu munawwara abubakar ak rasulullahi mu ne wa min samaniyati ayyaami jaaba ala tilkal masafati lam yat ham walam yanami waaw Seydi Hadji Malick nee na huit jours la ñu dox génn màkkatal mukarrama lëndi duggaat madinatu munawwara lëndi kon juróom-ñetti fan la ci la dox bi ñu génnee dugg ci biir xuntu wi xam nga am na fu ma romb ci ginnaaw ma dellu ca fi gaa yi di waxee ni di yëkkati euh, Seydina Alioune ci kaw mais sang bi leeral na ko fi borom xam-xam bu rëy ba sërif Ibrahima Aïdara At-Tidjani leeral na ko fii ci biir jotaay bi wax keroog sax hadis boobu maa ngi koy door a dégg bi mu ko fi moom ba mu ne anna madinatul ilma aliyun baabuha mu ne aw kamaa xaal ba mu dugalee aw kamaa xaal rek laa daanu anna baytul ilma aliyun baabuha mu door koo indi madinatul ilma mooy dëkkub xam-xam baytul ilmi mooy néegub xam-xam mais baytul ilmi boobu ñu bëgg a wax ni àllin moo taxaw ci buntu bi sut saxaaba yi ah bi nee na nekk bul xam ñi nekk ci néeg bi ñan lañu waaw Chérif fii la ko waxee mu ne bul xam ñi nekk ci néeg bi ñan lañu donc comme que Aboubacar a taxaw ca buntu ba Seydina àllin mu ne ña nekk ca néeg ba danga xam ñan lañu ci la lim mu ne Aboubacar a nga fa Omar a nga fa Ousmane a nga fa yonent bi def ko léebu mais li mu indi foofu dégg naa ci sama sëriñ bi ñi mel lu xotteeku muy Baye Ibrahima Saaxu mu ne yëguloo ne an naa baytul ilma boobu baytul wilaaya la doxul ci xam-xam boo demee ci baatini ya mais boo demee ci zahiri ya mën naa dox ci xam-xam mais boo demee ci baatini ya baytul ilm boobu mooy baytul wilaayati misbaaxu zalaami wa miftaaxul kunuuzi wa xatmun kullu lil xiini parce que yaxruju minhuma lu'lu wal marjaan muy Ousseynou ak ñoo meññ ñi amee wilaaya loolu la doon junj yëguloo ni ñoo meññ ñi ame wilaaya mais mbir mi boo bëggee jël àllin tegee ko ci kaw mais ñi xam Aboubacar mooy kan te yonent bi toog wax waxam maali ahadin manzilatun fil qalbi ka Aboubacarin Saddiq wax jooju leer na kenn amul wàccuwaay bu doy bi Aboubacar am ci sama biir xol. Seydi Hadji Malick ca laami yamba ba muy way dafa ne wa ub u bi siddiq mu ne dinaa tàmbalee way saxaaba yi ci aboubacar siddiq ñu ko koo kan mu ne atiqun wa saanis nayni fi lgaari laaqiya min algaari maa xat kaada minhu yaxiilu ca laami yamba Seydi Hadji Malick loolu la wax mu bi ñu àggee ci xuntu wa alal ji ñu yóbbu madinatu munawwara Maodo nee na alal ja fa la leen fekk ca biir xuntuwa ki ñuy wax Abdullahi ak Asma ñooy indi reer nabi ne leen balaa ngeen di ñëw guddi gi maag euh, sa baay Aboubacar dinañ yett ci lu doy ni xandeer téeméeri ngurdu bu ngeen ñëwee ngeen àgg bàyyu Aboubacar Saddi fekk bët yi sëggoon na mais laaj leen ko Aboubacar topp na waayam jooje ngeen xaw ñoo saboote pour mu gëm leen topp na waayam jooje est-ce que yóbbaalewul xaalis ji maam abal ñu caabi ji ñu seet ndax Aboubacar yóbbuwul xaalis bi bu leen joxee caabi bi ngeen tijji rocc mbuusu xaalis roof ca mbuusu xeer lii kenn naa ko leeral de muy Seex Seydul Xaaji Malik waaw Maodo nee na xale jël xaalis bi indil ko Aboubacar ca biir xuntu wa xam nga li ci gën a yéeme Aboubacar cofeel bi mu am ci yonent bi tax na tax na ba muy dugg ci biir xuntuwa yëre bi mu sol mais bi mu duggee ba ci biir yëre ba dafa jeex fu mu jekku rek xotti ci yëre bi gis pax saañ ko fa fu mu jekku rek xotti ci yëre bi gis pax saañ ko fa ba pax yépp muuru mu des benn pax te yëre ba yëre ba jeex na Aboubacar jël pax boobu sës ci sës ci poojam teg ko fa Seydi Hadji Malick nee na ba mu fa tegee poojam li mu wax yonent bi man xam naa ko ñu ne Maodo bindal mu ne dafa ne yonent bi tëddal ci sama euh, lupp bi nga ngegenaayu nga dallu tuuti bul wax nelaw tanaamu ayna rasulallahi sayiduna wa xalbuhu dahra ma zaqa manamaat Seydi Haj Malik nee na nabi du nelaw xol ba du nelaw mëg bët yaay gëmma tuuti rek danga naan dafa dallu ndax dox ba bi mu bi tuuti ci lupp Aboubacar Saddiq jaan bi nekk ci biir buux tànku Aboubacar mais Aboubacar ku am yar la bañ na dawala tànkam euh, xaw a xaw a sonal nabi ci tëddaay bi Aboubacar teg tànkam waaw alxaaji Ibrahima Saaxu boroom xam-xam bu rëy booba yal na yàlla yaatal bàmmeelam mu ne dafa am ñu ne abubakar jaan bi def ko laal mu jooy rongañ baa dal ci lexu nabi nabi yeewu alaaji ibrahima saaxu nee na ku ànd ak bi du salit bay jooy mu ne danga naan jaan bi def ko laal dangar ba yéeg tàngoor baa ko jàpp mu ñàkk ñàkk baa roogaat dal ci lexu nabi nabi jóg loolay li leer ku ànd ak bi du salit bay bay génne rongoñ ah mi abu bikirin saddiq ca foofa jaan bi ba mu ko laalee mu teggi tànkam mu teggi tànkam Mm, am na yoo xam kenn du ci àgg am na yoo xam kenn du ci àgg mais Seydi Hadj Malick nee na wal maalu lil gaari abdullahi xaamilahu ñu ne Maodo nu ñu def ba indi ko ca biir mu na xul asma buñ la laajee neel xul na alal ja abdullahi ak asma ñoo ko lijjanti kër ga ba indi ko ca biir xuntu wa ñu ne Maodo nan lañ ko indee mu ne wal maalu alal ja lil xaari ca xuntu wa xaamilahu roñ nañ ko yóbbu ñu ne ko kan kan mu ne abdullahi ak asma ñu ne nu ñu def mu ne xarrat naxee nañu jaddahuma seen maam ñoom ñaar minal ira xeer yi lañ jël dugal ko rocc ay mbuusu xaalis yóbbu loolu lañ ko naxee ñu ne Maodo somu xaalis bi ñaata la mu ne laaj leen ma ko man Malick Fa Wadda Wele wal maalu lil xaari mu ne euh, xamsata alaafin aw arbaatin aw sittatin ruwiyat min indi baadihimi Seydi Hadji Malick nee na am na boroom xam-xam yu ne ñeenti junni la am ñu ne juróomi junni la am ñu ne juróom benn junni la loolu ro soloon nañ ko ci ñeent ñenn ñi waaye lu mu mën a doon daal Maodo nee na indi nañu xaalis xaalis googa lañ jënde pàkk ba ca Madinatu Munawwara Maodo nee na bi leen suraaxata dabe mais Suraaxata dafa génn ci pénc mi ñu jox ko sàngara muy laal war fasam di rëppatal di dem di del siwaat xam nga góor guy waaj a xeex rek ay jigéen di ko tàccu da ngay gis sa bopp te xamuloo ndax yow lañuy ñuy mëne wala duñ la mëne mais tàcc jigéen dafay dugal nit léeg-léeg mu dal leen bàyyi leen ko ànd ak xale bu jigéen moo xam sa koy labat la mu tooñ ci oto ba noppi ne la moo séeri doo ci wax yow nga jóg ca ñu labbali ba ba ba nga tàng bu tooñee neel moo tooñ nga att ni mu génn a rafetee nga dem sa yaram mucc yaramam mucc parce que jigéen jikkay takkandeer la yore bu xeex amee gis nga takkandeer bu xeex amee boo defee nii mu def nii nga xëcc sa yëre takkandeer xëcc yëram na tey rek laa koy rey nga ne tey rek laa koy rey takkandeer ŋaaŋaale mel ni da koy rey nga songo waa ji mu yenu ba ca kaw dóor ci suuf nga amee ndong luy metti jóg di faqasu takkandeer di faqasu ta dara defu ca dara lépp yaa ko def moo tax suraaxata bi ko jigéen ña tàccoo ca pénc ma mu xool boppam yëg boppam ne yi duma ko neenal bopp waa ji naa ko jëli ji ma ne ko xamoo ki ngay fekk ji kenn du sayyiduna Muhammad waaye bi mu rëppatalee fasam ba jege ba jege sayyiduna Muhammad Aboubacar moo gestu seen suraaxata Aboubacar yin Saddiq moo gestu seen suraaxata sal suraaxata iz kaana mustalqiqan bil xayri wal karami bil xayri wal karami moo yéema ca wax ja waaw ñu ngi ziar baax sang bi ay dara ma yeggali foofa mustalqiqan bil xayri wal karami loolu yéema ci wax ja aboubacar keroog ba mu dabijee sayiduna mouhammad suraqata mais aboubacar gestu seen suraqata di ñëw di rëppatal mu ne nabi dafa am euh, dafa mel ni am na ku ñu féetoo ginnaaw ci ñun la jëm si Seydi Hadji Malick na booba maa ngi bind ci sama këyit ya mu sal laajal Maodo nee na sal laajal ñu ne Maodo ku ñuy laaj mu ne suraqata mu ne lu ko dal mu ne is jamono ji nga xamante ni kaana nekkoon na mustalqiqan di dabu ji kan lay dabu lil xayri ki gën muy sayiduna muhammad wal karami ak ki mu teddal muy aboubacar saddiq xoolal ñaari baat la Maodo utilise xayru ak karam moo tax mu indiwaat wa bi xaylihi wa bi xayrihi jalla balwara wali man ajaabu nekk duuna xaylin wala xayrin naylu xayru maraami looloo ca yéeme dafa am ñëwuyu tafas indiwu leen jaasi indiwu leen alquran ju neex indiwu leen dañu ñëw rek siggi xool nabi tuub ci moom moo tax Maodo indi ca nuuni ya jaa oo bil xazawaati jaa oo bil ayaati jaa oo min al wajhil mustafa al muzuni wa bi xaylihi wa bi xayrihi jalla bal wara wali man ajaabu duuna xaylin nag wala xayrin wala xazawaatin wala wajhil karimin naylu xayru maraami looloo ca yéeme Aboubacar noonu la ñëwee ci sayyiduna Muhammad moo tax Maodo waxat ca abada buruux laa ayba fihim gayra anna jumuahum summul udaati suudun li kulli idaami Maodo nee na saxaaba yi bu ñu dee am ayib benn ayib la ñu am ñu ne luy seen ayib yow Maodo saxaaba yi ngay wutal ayib mu ne dajaloo ji ñu doon dajaloo doon benn ci seen bopp ku ci nekk yéene moroomam loolay seen ayib mu ne ak noon bu leen jubee nañuy jógee pour rey ko même bu jubee ci kenn mu ne loolu bokk na ci seen ayib kooku mooy aljamaatu rahma abu siddiq ba ko suraaxata jube mais yonente bi kenn du sayiduna muhammad li mu doon yëg ca famu ne ca kaw fas ba aboubacar ne ko suraaxata dab nañu Maodo nee na laaj ko nekk ba mu leen dabee demal ca laame ya ba bàyyi xilaas ba si daaj malik ne falillahi issaaqat jawaadu suraaxata qawaimuhu baada rujui yaquulu aba hakami muy abu jahlin law kunta saahidan amaama jawaadi wa lujuuju jahulu wa jahulu lujuuju mu ne fa lillahi eskey fa lillahi kawtéef si daaj malik nee na yàlla defal yonante bi loola keroog moo tax Maodo tàmbalee fa lillahi is fàttalikul ñu ne Maodo kañ mun a saaxat ba loofoo ñu ne sihlu loofu mun a jawaadu suraqata naaru góoru suraqa mun a lana loofu ci suuf mun a xawaa'imuhu ñaari tànkam ya yaquulu muy wax aba xakami moom abu jahlin bi mu delloo màkkatal mukarrama mu àgg ca gaaya gaa yi ne ko ni nga demee woon ñëwee woon noona dangaa dem ak njambaar mais dangaa ñëw ak nooy nepp yaru lu xew mu ne da ngeen xamul waa ji law kunta saahidan bu ngeen fekkoon amaama jawaat yi ci naaru góor gi ni muy duggee ci suuf di génnaat ak waa ji ni muy ñaanee yàlla waa jooju ko am may la moom soppaliku na léegi di tagg maami Serif Ibrahima Aidara mu ne ku am may la bu ngeen fekkee woon ni mu doon ñaanee yàlla euh, naaru góor gi ni muy duggee ci suuf si ak ni muy génnee di ngeen yëg ni wallu juuju coow lu bari bëri jaxulu réeraange la mu ne di ngeen yëg ni coow lu bëri jaxulu réeraange la xamoo leen ko bi mu tiimee nabi yàlla jox nabi ndigal pour suuf si wan na ko suraaxata suuf si wan na ko ba mu àgg ci ndiggam mu yuuxu ne lamaana yaa rasulallahi nabi ne suuf gëkk ko ma xool li muy def suuf génnee ko ba mu taxawaat nabi di avancé ak aboubacar suraaxata ne foofu daa nooyoon du ñaanam bërëb bee nooy mu songaat nabi nabi ne suuf njettaatal ma ko ñaareelu yoon ba ba mu àgg ci dënnam mu ne lamaana yaa rasulallahi nabi ku bëri yërmande la fa bima rahmatin min allahi linta lahum nabi na suuf génnal ma ko suuf génnaat ko mu taxawaat mu ne foofu daa nooyati bi mu songee na bi ñetteelu yoon wi moo fas bi ñoo boole woo di dem ci biir suuf si mais bi mu génnee dafa nabi jéggal ma ci sa kàttanu borom ba ko nabi jéggalee suraaxata ne fa cet taxaw jubatul ci nabi xam na ne kii mayu yàlla la yore Seydi Hadji Malick nee na bu ca yem suraaxata ba mu ñëwee burayda la ñu waxtaanal ñu ne ko dawal nga dabi ji ko burayda dem xam nga barada mooy sedd na nit ñëw tudd burayda as sedd nga bëgg a song ku doy ni sayyiduna muhammad du mën a sotti waaye baaba ba mu àggee ci moom nabi gestu seen ko burayda avant moo génn kër ga dafa ni billaay bu ma ko dabee tey tey ngeen xam ne jàmbaar la jigéen ñi ne ko yow kenn du yow <laughs> tàccu jigéen moytu leen ko ne ko kenn du yow suraaxata dem na ñëw waaye yow booy àgg di ñu defal li li ñu bëgg ba mu demee ba jub nabi moom moo àndoon ak mbooloo moo tax nabi dugg ak mbooloo na munawwara bi mu agsee nabi xool ko mu ne ko ban giir nga bokk mu ne ban nii sax mu mu ne ko aboubacar xaraja sax mu ka sa cër génn na kii xajuma ci moom nee na ban nii sax mu la bokk kenn du yonent bi ak bëri xam-xam loolu sax waxit la ak bëri xam-xam ndax pax boo ci dàkkee ay kaña ñu génn benn bii njëkk génn rek mooy kaña ya ca des yëpp beneen kañaa ngoog rek waaye ba njëkk génn rek ay kaña mais bi mu ñëwee taxaw ci wetu sayiduna Muhammad nabi ne ko jàkk di ko xool mu ne ko nga ne ban ban giir nga bokk mu ne ban ni sax mu mu ne Aboubacar xaraja sax mu ka mu génn Aboubacar taxaw di ko xool mu ne ko noo tudd mu ne Burayda mu ne ko Aboubacar barada ka sa mbir seet dana kii xajoo ci moom nabi téye ko benn loxoom yëkkati ko ne ko nga ne lan mu ne ko ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu annaka muhammad rasulullah kuy am doole moo la ko ëppale kenn du yonente bi moo tax aboubacarin siddiq noonu la meloon ci yonente bi moo tax bi ñu toogee jotaay nabi ne uhibbu min dunyakum salaasa asiyaain bëgg naa ñett ci seen àdduna ba nabi daanalee lan moo tax omar a nga fa jëlut ousmane a nga fa jëlut Seydina Ali moo nga fa jëlut mais Aboubacar moo jël ne uhibbu min dunyakum salaasa asiyaain ñu ne ko ban ban la Aboubacar mu ne yi ma bëgg a bëriwul ñett la rek juluusu bayna yaddayka wa kasratu salaatu alayka wa infaqi mali alayka ñett yooyu laa bëgg ci yonent bi jeex na sama lépp jox naa ko yonent bi bëgg naa daal bu ma xëyee toog rek jàkkaaroog na bi di ko xool rek di ko xool lek ak kanamam bu tedd ba ne ko jàkk di ko xool wa kasratu salaatu alayka bëgg naa fu ma toll di julli ci yow sayyiduna muhammad dafa mel ni abubakar dañ ko laaj mais sa keef yi nga dénk yonente bi foo ko jëlee mu ne yàllaa ko njëkk a sàndi ay keef yaa ayuha nabiyu inna ahlal na lakka azwajuka allati atayta ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afalaahu alayka wa bannaati ammika wa bannaati ammatika wa bannaati xaalika wa bannaati xaalaatika allati hajarna maaka wamraatan muminatan in wahabat nafsaha li nabii in arada a nabiu an yastankixaha xaalisatan lakk min duni muminin nabi rek ko am keef yooyu yëpp aboubacar jël ñett delloo ko sayiduna muhammad ne ko bëgg naa fu ma tool di julli ci yow mu ne beneen bi ci topp nekk jël sama alal di ko dépassé ci yow taxaw ma doylu ci loo bëgg ma defal la ko yow sa sayyiduna Muhammad loo xalaat ma defal la ko yow nabi loolu rek laa bëgg ci yow Aboubacar moo ma nekk li mu amal sa sayyiduna Muhammad mu defal ko ko looloo tax ba ñuy dugg ma Madinatu Munawwara kenn ràññeewu kook nabi ndax nabee ko may ci la mu am ki la ñaagal nag moo la ëppale te Habib Sarr nee na ku taal cib taal ba tàkkule nangu woo fi nga jëlee safara sa am na loo nar waaw Aboubacar ci yoonant bi la taalee mu sës rapp ci sayyiduna muhammad bi ñu duggee madinatu munawwara mu bëgg waa madina xam ne kii mooy aboubacar kii mooy sang bi aboubacar lakkar ñi kaalam di mbaaral sayyiduna muhammad seex sayyidul haaji malik si nee na maa ngi jàkkaaroog moom islaalu sayyidina siddiq qul arrafahum iyahu innahu min afdalil lumami mu ne keral bi ko Aboubacar keral ci la ñu xamee ni kii mooy Sayyiduna Muhammad ki ñuy mbaaral kii mbaar mooy surga bi mu ne ci lañ ko xamee mu ne waaye li ci gën a yéeme Aboubacar a ngi ci kaw fasam mais wàcciwul gëleemu nabi moo doon yës di jógaat gëleemu nabi moo doon yës di jógaat ñetti yës la yës Seydi Hadj Malick indi ko madaawa man marra minhum xaa'iluuna lahu alqil asa talxa xayral amni wal wal wal idami Seydi Hadji Malick nee na ku mu romboon mu ne ko fii mooy kër mbayeen yi déedéet loolu jaaduwul fii mooy kër ñi sant ay dara sàndil sa yet fii ñii teraanga rek lañu mën mën nabi ne wi mu zu isnin bàyyi leen gëléem bi golom borom ndigal la fu ñu ko jox ndigal rek fa lay wàcc gëléem nga rombaat ci kër ñi sant si ñooña ne ko sànnil sa yet fii fii mooy kër gor yi Seydi Hadji Malick nee na gëléem nga yeesul continuer waaye ba mu àggee ci kanam rek gëléem nga yës ñetti yës saarat walam tan a wa tanawaa wa rajaa saaniyatan si daaj malik ne wal jaajau lam yuhami Maodo nee na te lafafat xalfahaa xaswaawu si daaj malik nee na gëléem nga bi mu yësee première yës ba àggul carrément Maodo nee na dafa teg njañ yi ba mel ni mu ngi àgg ci suuf si daaj malik mu ram mu randamtalu te lafafat xalfaha mu dellu ginnaaw tuuti rek Maodo nee na ma seen ko su ma xat wasabat mu ne ñàjj jóg taxaw saarat muy doxaat walam tan a taxawul wa tanawaa wa rajaa saaniyatan Maodo nee na ba tey wal jajau lam yahime wa qaddimi laama aw axiruhu mujaman haalaza xalabiyun te laxlaxat Seydi Hadji Malick nee na te laxlaxat te xalxalat te jaljalat ñett yëpp day dem Maodo nee na gëléem nga ram nantalu jógat taxaw Seydi Hadji Malick ne mu ne nabi fii sa juma mu ne su maxat wasa bat mu ne ñàjj jogaat wal badru rasulillahi maaxal la an xaa wàcciwul ca gannaawu gëléem ga gëléem ga saarat Maodo na muy do saarat ba mu boof mu yées mun deey nabi ne ko fii doon sa kër su maxat wasa bat mu ne ñàjj jógaat taxaw walam tan a watan na waa war a ja asaliyatan ba tey wal jax jaw lam yu xam Seydi Hadji Malick nee na gëléem nga yësaat ñetteelu yës ba ne ko nabi fiyey doon sa bàmmeel Maodo nee ñetti yës ya loolu lay wundu ba mu yësee rek wàcc rek avant moo teg tànkam Maodo nee na ma xam place ba almahallu huna insa a xaali huna walil yatimayni kanat mir badal ganami Seydi Hadji Malick nee na almahallu huna place bi fii la place bi fii la almahallu huna insa andem neex na xaali huna yàllal mi ñu bind bi muy wàcc rek jibrilu ne cëpp ci wetu nabi ne ko alif lam mim zalikal kitab fa la wàcce bi tànk ba di cëppeelu rek jibrilu sax ko sóoratu baqara mu wax ko ni ñi ngay àndal ñoo ngi ci sa ginnaaw bàyyi leen xel muy allazina yuminuuna bil xaybi muy aboubacar wa yuqimuuna salaata muy omar wa mimma razaqnahum yunfiquuna ousmane ibnu afan la wallazina bi bima unzila min qablika wa ma unzila wallazina yuminuuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil axirati hum yuqinuuna allin la yàlla joxoñ ko ñeenti saxaaba yi ne ko bàyyi leen xel ñoo ngi ci sa ginnaaw ñoo lay jàppale nabi dafa wàcc rek Maodo nee am ku jël ay tegam jël teg bi jël laab bi yenu ko di dem Seydi Hadji Malick ne xam naa turam mu ne Abu Ayyuba lañ koy wax mu jël tegi sayidina Muhammad yóbbu këram Abu Ayuba mu àgg yóbbu ko këram ba dugg taxaw denc ko ba noppi door a génnaat ca pénc ma Seydi Hadji Malick nee na fii asfali daar xallal badru nuzuluhu fawqu baadal man izu salami gars yi yàlla nañu yàlla defal jàmm yàlla nañu yàlla sàmm sàmm bépp mboolam julit ci barka sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy nuyu bu baax di ziyaare bu baax comme niñ ko defee ca ba ñuy commencé sang bu tedd bi yegsi ci suñu biir di sama sëriñ di sama sang waaw kuy bokk rek bokkaalal sa bopp maa ngi dem man kese di sama sëriñ <laughs> ma waxaalal leen waaw di sunu sëriñ di sunu sang di sunu kilifa di suñu ku ñu amul lu dul moom man de lu waay am jëlal kii doy na ma waaw nun waaw wallahi al azim fu ne laa koy waxee te am fitu nekk taxaw fu ne wax ko nekk ku wax nekk ni nga waxee ma xam ni ma lay tontoo mais billahi wallahi tallahi amuñu ku ko gën loolu la yàlla dogal ci suñu jëmm lu waay mën a def defal lu la neex kii lañu ñu gëm xanaa lii jeex na am déet toggal palaa bu la neex lekkal mbaxal dëhin suppu kànje ya ca aju ñun kiyee ñu saf palaa bu la neex nag jëlal ndax lillahi qawmun rek isa xallu bi manzilatin xalla nadda wa alat fil jawwi anwaaru tastaaxuhum kullu ardin yanziluuna biha ka annahum li biqaail ardi ansaaru ay dara yal na yàlla guddal sa fan yal na la fi yàlla yàggal ñoo ngi lay sagoo fu ñu mën a toll ñun lu ñu yootu rek ñoo ngi koy jot ndànk-ndànk te looloo ñu gënal jotandoo ko lu ñuy yóotu bi ñu la xamee ba léegi ñu ngi koy jot ndànk-ndànk moo ngi ñëw te moo ñu gënal mu ñëwandoo benn yoon moo ñu ko gënal foofu téeméeri junni yoon yàkkamtiwuñu ñoo ngi ci sa wet goor loo ñu sant ñu def loo ñu ne bàyyil ñu bàyyi jeex na lii lañu am ci yow lii lañ la toppee yaa ñu war a àggale ci sa maam yow lañ ci yaakaar yaa man de yaakaaruma ci kenn ku dut yow ndax man yi ma jot a gis billaahi keneen mënuma génnee ci moom xam naa li nekk ci wadde waaye billahi wallahi tallahi bu ngeen déggee ni bàyyi naa ko dimbali leen ma ñëw leen kër ga waxtaan ak man toog leen ci sama nopp naan siidi lu la xiir ci lii waa siidi yow waaye dimbali leen ma yóbbu leen ma ci sëriñ bu ngeen xam mu del soom ci loxo kii <laughs> looloo ma gënal lu ma am lu dul loolu leneen gënalu ma li may wax Sénégal yëpp koy seetaan maa ko wax tele bi na ko jël buqaale samay bët wax ko law yal na yàlla def jàmm sang bi jërëjëf baal ñu ci kàddu gi niñ ko waxee ñoo ngi lay baalu xàq baax ñaanal la yàlla yal na la yàlla defal jàmm di la xamal ni ñi ngi fi bàyyi woon bi nga tukkee ñu rafatal lañu ci xadara bi sëriñ Atumaan Jool ak ña koy jàppale ci baas yi ak basaa ak ya ci aju yëpp ñu góor lañu tabaarakallaahu ñëpp fii la ñuy nekk ñëw xadara seetuñu ni ndax yaa ngi fi wala nekkoo fi waaye ñoom ñëpp fa tabaarakallaahu saa yu àjjuma jotee suñu baay yu baax yi ñëw wéttali ñu ñun ñëpp ñu nekk ci xadara bi liggéeyal la rek nag moo ñu tax a jóg wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ak di leen ndokkeel benn tey ci weeru tedd bu màgg bi ngeen jéggalati ñu rek embouteillage bu dul jeex gis ngeen maa ngi door a julli timis moom da ngay dem ba sax dangay ngay moom waxtu woo jógee Dakar rek te mënul ñàkk ndax dakaar laa waroon jóge moo tax maris sax faf maris moom jóge fa maris te moo gën a ngeen may ñu tuuti rek jigéen ñi boo jógee mariste moom daanaka moo yées sax nga jógee biir dakaar kon ñu ngi leen di nuyu jigéen ñi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara yéen ñépp ki ci mag ba ki ci gën a féete ndaw ba kay namp ñëpp ñu ngi leen di nuyu góor ñi yéen ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di ndokkel ci weer wu tedd wu màgg wi ñu yàlla boole fekke nañ ko mu rafet yal ñu ko fekkee waat déwén te yal na déwén gën a rafet ren yal na déwén gën a baax ren yal na déwén gën a neex ren yal na déwén gën a naat ren yal na déwén gën ci boor yëpp ci anam yëpp ci ren ah ci mbaaxu yàlla nag su déwén na may ñaaw yal na dàq ren waaw ah, yal na dàq ren ci daraje yonent bi salaay ne ñuy bàyyi xel ci ni ñuy ñaane ndax yàlla dafa maandu léeg-léeg nga dégg ko naan bu déwén na ñaaw yal na mel ni ren ren ren baaxul nga bëgg dewen mel ni moom àddina day tukki rek waaw bu déwén na may ñaaw yal na dàq ren ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke ki ñu doon waxtaanee muy Seydina Aboubacarin Siddiq ak barke saxaaba yonent bi yëpp di ndokkeelaat oustaz Ahmed bu baax ci waxtaan bi la liñ ci jot a fekkee jaar na ci niñ ko bëggee te jullit ñëpp bëgg nañ ci lii ñëwit yaakaar nañ ci mbaaxu yàlla incha allah yëpp noonu lay mel kon mu mel ni rek liñ ko ñëwaan ñaanoon may nañu ko moo di mu waxtaan ci seydina Aboubacar ajjuma bii di ñëw mu waxtaan ci seydina Omar ba ca topp mu waxtaan ci seydina Ousmane ba toppaat mu waxtaan ci seydina Ali karamallahu wajha ridwanul alim ajmain ñu door a yeggali nag suñu suratu nuur ndax weer wi ñu toll moo tax ñu doxale fi lii alquran li muy rëy rëy rëy te dara gënu ko rëy su dutoon sallallahu alayhi wa sallama du wàcc ndax yonent yëpp jaar nañ fi ba dem alquran mosul wàcc ndax attanuñu ko benn yonent àttanu ko jim ana jim gay ñu ngi koy nuyu xaaju badara ñu ngi lay nuyu di nuyu ibrahima fay boroom Grèce boroom xadara bu am solo ba tabarakallahu mu ngi nii ci suñu ndeyjoor toog di nuyu imaam yuusu géy di ko ndokkeel wax naa ko àjjuma bi paase di la jéggalu nag ci ñàkk ba fekkee burdu ba waaye incha allahu dootul am incha allahu moom kañ yii moom dootuma fekk ci àll bi incha allahu mooy koor korite tabaski tamxaret màggal gàmmu incha allahu moom feeg maa ngi dund dootuma fekk àll Sénégal la may fekk ci kàttanu yàlla eh, bi ci des nag moo di sow Mohamed ñu ngi lay nuyu yow it Babacar tabaarakallahu imam gay waaw kon imam Yuusu ñu ngi lay sant bu baax nag di la gërëm di ndokkeel la ci guddi googu nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk di ci sant ñëpp nag di nuyu bu baax asatise yi fi nekk yëpp Cheikh Ñang ñëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ kenn yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara kart yi ma yore nag bu atuma noppee mu seet nu mu ko séddale mooy conférence bi ñuy defal waa soti bi may defal waa soti